lycée des Diop mu ngi Buntom, sur ci octobre 1985 à mon téeméer ak juróom ci ay élèves bi muy a commencé Mon lycée bu mag waaye tamit ay cadre yu bari daal di fi jaar nekkoon ay élèves Joseph Diène bi nekk jamono ji censeur bu lycée bi. je crois que dina am ay nit ñoo xamne ne ñoom ñoo may xarañ sax j'allais dire pour wax ci lolu tellement que mbir mi mbirum la la ko mën wax sa pape na na voilà parce que non la ko a amna fi ay surveillants yo xamante fi lañ en tant que euh, instituteur bi muy euh, école normale cours normal donc euh, ñooñu ñëw encore nekk suñuy surveillant fii nii ñun bu ñuy jàngee fii depuis euh, vous me prenez un peu de cours mais dans les années 80 exactement donc tu la première promotion en tant que en tant que lycée toujours est-il que euh, lycée Bouya yàggee euh, des am tour parce que nous sommes en termes de résultats c'est année pourcentage des de de pourcentage national mu ay résultats yu am solo yi nga lycée bi da koy chaque fois par la grâce de Dieu suñu pourcentage des sut pourcentage national moyenne nationale avons euh, aussi méngaleeg yenen école parce que école buy am lu ëpp 1000 candidats xam nga soko bëggé classer ak yenen école yo à peine cent wala yenn yi duñu sax motale cent. si jamono ji mu am lu mat ñenti juni ay élèves. lycée Demba Diop bokku ci lycée yi gëna a fi ci Sénégal waye tamit. bu ëpp ci biir département bu Mbour si jamono ji administration bi ak élèves yi di wote walu ndax lenn ci ay bâtiment ya dañoo daal di commencer yàqu waral ñu tej yenn ci ay salle de classe ngir gën a woy ci kaaraangi élèves yi. bon situation bi lycée bi dund de situation bu doy waar la ndaxte boo xoolee lycée bu toll nii ci dayo ndax daanaka li fi ne ci ay ay ndongo mat nañ ëpp nañ quatre mille quatre mille defe naa moom la ñuy wax ñeenti junni ci ay élèves ay ndongo yuy fréquenté lycée bi te lycée bi déjà dafa am problème mu de classe ndax fu toll nii ñu ngi ñu ngi ak deux

parce que parfois da ngay gis ben peinture bu blanc lañ koy peinture en plus da ngay gis miir am ay dessus am am ay dag dag yo xamanteni worul de fait de ce fait à chaque fois ça da ngay yakane chaque hivernage bu ñewé ba jàll ay yakane classe yi na fi jaaree daan loolu mom du yoon instant bi bo duggé ci classe yaa ni bâtiment yi du ñoo ki wé kiiwee bari wu presque ci classe yi sax ñoo tané yi nekk comme genre buñ doon def seconde classe baxna porte yépp C'est normal. Mais en termes de classe, le bâtiment est bas. Même le porte-tête, il faut le faire. L'UE, sous l'état du bâtiment, les élèves qui connaissent le bâtiment sont les plus nombreux à les trouver dans les tables de banque. Nous avons besoin de tables de banque. Les tables de banque sont parfois de 2 à 100%. Parce que parfois, on voit 3 élèves par table ou bien 4 même. Voilà, on peut prendre une table de banque pour que 3 à 4 élèves toog ci aussi ah, du du lu gën parce que tamit vraiment bo togué pour jang il faut da nga wara nek dans de bonnes conditions bo xamanteni kenn du la déranger nga mëna a au moins ñu def deux par table c'est mieux xam nga classe aussi dafa dafay dafay dafay mëna bari nit trop dafay fess xam kenn du mëna pile pile de quatre et quelques élèves ci benn classe loolu tamit vraiment du du compréhension bi nga xamante ni moom lañ soxla à 100 pour cent duñu ko am. lycée Demba Diop war a am beneen xar kanam bu wuuteeg bile di nurookam comme ab forêt waral ñuy ñaan autorité administrative yi ak bonne volonté yi ñu gën a bàyyi xel lii di lycée Demba Diop. xoolal école bi nu mu mel daanaka forêt forêt mu ngi fii ci biir école bi forêt bi de temps en temps policiers yi dañuy ñëw jàpp fi jaay jàpp fi jaaykatu yàmbaay ak am na bandi yoo xam ne pour ñu rëcc boo boo tëbee miiru Demba Diop kenn du la ñeme topp ndax forêt bi ne ci ginnaaw donc fii li fi war a defar bëri na li ñu defar bëri na mais euh, kenn mënul defarandoo lépp mais nañu commencé d' abord ci salle de classe yi d' xale yi ndongo yi am fu ñu toog mën a jàng ñun loolu moo ñu njëkk soxal la ca des nag après ñu do waxtaan ci di ci dox. di leen di leen wax rek di leen ñaan foo ñu mun ñu jàppale si maanaam suñu sécurité avant tout parce que boo xoolee lii si ni certes ñoom lépp li nga xam ne ñoom war na naa ñun ñu ngi koy def ñu ngi ñuy jàppale ñu ngi ñu ngi wàññi maanaam garab yeeg tout ça mais boo xoolee lycée ci ginnaaw li wër lycée bi yëpp garab yi fa nekk ak salle bâtiment yi c'est pas sûr daal assuré wul sécurité élèves yi. ah naa ne di yoon de parce que espace yi mënoon nañ ko aménager en fait defaat leneen quoi waaw ah, loolu moom ah man sama xalaat quoi espace boobu noonu mënoon nañ ci aménager waat defaat fa ay salle de classe mooy Euh, concernant également euh, fi quelques difficultés yo xamanteni ni euh, administration bi ou bien l'état du Sénégal suñu ci jàppale woon dinañ daldi am neex trop vu que ni sur l'aménagement des des toilettes l'entretien plutôt des toilettes parce que nous ñuy ñu que ni que ni euh, si école bi fi ni toilettes yi c'est pas bien entretenu voilà et concernant également euh, infirmière bi tamit moy parce que